téléspectateur u Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ziyaar bu baax a baax di leen dalal itam ci seen journal de l'arène ma ciy ànd ak sama càmmiñ boobu di Babacar Babacar mu mel ni tey da ngaa laalaat beneen blouson ah, laal sa rouge bleu xaw ma nag kañ laay jot ci blouson yi man. soxna Wuli ma maa ngi lay nuyu di la ziyaar di la wax dalal jàmm ahlan wa sahlan soyez les bienvenus wala soyez waaw dalal la jàmma xam nga man moom tubaab mooy loolu maa ngi mais maa ngi lay dalal jàmm rek si Equivox TV di am contentement taxaw tey ak yow macha allah ah macha allah daal di la béggee la wax ne blouson yi moom bu soobee suñu borom di nga ci jot parce que kii ke moo ko jox mu nga ba Maroc Fallou lañ koy wax kon Fallou dimbali ma ci ulimata mi yaa ngi koy gis blouson joxal ma ko bu weex bu weex kon jeex na. <laughs> alors mu mel ni tey jii suñu làmb ji dafa am ay yëngu-yëngu donc euh, ñu dem léegi léegi euh, xool yi ci suñu revue des titres. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 10 mars 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy tey dooreete ko yëglikaay bi di sunu làmb nag moom tey fa mu xëy génn ci xëtam mu njëkk maanaam fenn la ñenn ñoo xam ne daal wala mondu làmb wala askanu làmb daal tey ñoom ñépp ku ci nekk daal yooxu nga ba sa baat sës ka ñu yooxu nag wala ka ñuy waxal du kenn ku dul metre Malick Sall mi nga xam ne justice réew mi maanaam moom la ko président Macky Sall dénk la ko waral nag mooy France 24 ga mu dem xam le ne daal ñi doon dox ñaxtu wala di sànnee xeer ak a yàq ak a ay bakkan des ci ko ñenn moom ba daal làmb ca la ñu wax moo tax nag wala boog moom ca la mu wax moo tax nag waa làmb ñu ko fa mu yokkee ak nàkkam dal nañ ci kawam ba mu sës jàppal ka nga xam ne nii daal moom moo di Gris Bordeaux ma jiite mbër yooyu bëri nag moom la mu xam le daal ne na kii duñ ko bàyyi de déere ndax nag day yom pelante moom da ko cay fekk ñu dem ak moom ci yoon mu prouver ñu nun fan la nu gise nun mbëri ñu nekk ci mbedd mi di dóore ay xeer wala nuy sànne xaadim gajaga nee na ko li am ba des daal Gris mooy kii maanaam daal palmarès bi dëggantaan lanu wan ka nga xam ne nii moom moo di Konaté tamit nekk fa nga xam ne ni mu di ca Tëngéej ne ko yow Malick Sall li la war mooy noppi te démissionné maanaam jël say lenge say kayit ak say dëbës jox ko président ne ko dem naa ndax li nga wax kenn mësu koo wax aw askanu lëmb wala boog comité bi lëmb di waa làmb nga accusé leen accusation bu rëy bi te dara lu la leer amoo ci wala boog la ngay wax teguwul ci dëgg mel ni ki nag ki nga xam ne nii daal maanaam moom moo di ka jiite aleel sa tamit wax na ca mbir mooma daal mooy coow fi mu nekk nii ci dëkk ba Gaston Mbengue tamit xëy na di wax moom ka mu waxal nee na ki jiite réew mi daal la jàpp ne message ba ko askan wi doon wax wala boog wax dañ doon wax ak moom Gaston jàpp na ne président Macky Sall moom dégg na wax ja bu baax a baax a maanaam daal dégg na monde de la lutte fi mu nekk nii moom loo ci mën a dégg wax ja tàbbiwul ci noppi ku tëx lan ko wax dégg na ko bu baax a baax moom Gaston nag làmbam ja war a am le 4 avril sunu làmb ñëw na ci ba ci dikkee nag moom la mu xamle daal moom sunu làmb nen boo bëggee dégg dëgg daal ah ak kufur fa ba nga xam ne yokk nañu ko maanaam daal alléger ko bokk wàññi ko ak lu jëm ci wàllum vaccin bi moo tax ñuy yaakaar ne kon boo sàgganee làmb ji dana danañu ca delluwaat te bu buñ ca delloo sax mën na noo yaakaar nit ñi ñëw seetaan si ko am na loo xam ne nii moom ku ko doon yaakaar bu yeboo nga yaakaar yàkke ko wala nga koy xaar boo yeboo xaddi mooy ati mbër ya nga xam ne dañu xalaatoo ne daal dañ koy bàyyi noonu maanaam heure bu la neexee retraité wala ñu yokk quarante cinq ans ya bira seen moom nee na loolu moom du su ko def tey suba waxi noppi leer ba des daal mooy 45 ans moom duñ ko passé ku ko ci say at am booye ba moom joxe sa licence xam ne dootoo sëgg di bëre ki nga xam ne nii moom nee na dootu dugg ci làmb bàyyi na mooy maam as mbeng moom nag moom mooy président CDC ba nga xam ne moo nekk ca Tiwaawoon moom daal nee na li mu décidé mooy bàyyi làmb ji définitivement loolu mooy ay waxam buñ fa jógee record la ñuy dem record tamit buñ fa demee daa mel ni daal Malick Sall daal mooy justice réew ma tamit foofa de songate nañ ko fa de Modou Lo moom roi des arènes la daal ne na kii nga xam ne nii daal moom moo di Malick Sall daal ne lii mu wax nii sax moom Moodu ne na man lii dafa ma jaaxal ne na lii man kaw la ma dikki Boy Niang moom ne na mbir yi daa metti de ne na lii ci ministre bu toll nii wax wax ju rëy ji ah Boy Niang ne na kii waxam ji rëy na Malick Thiandoum moom moom itam wax na ca ne na daal lii moom aw saaga la ko jàppe li leen Malick Sall waxal li mu waxal waa làmb ji président amateur yi du jànjee ko tamit wax na nee na ki nga xam ne nii daal moo di ministre de la justice Malick Sall maanaam daa juum de juum na de trompé wu na de am xelam nax na ko xalaatam nax na ko ndax la mu waxal waa làmb waa làmb meluñu noona tey suba waxi nopp ndax làmb ña fa nekk di ca dund ñépp ay noobul lanu ka nga xam ne nii moom ay waxam nëbbu ko mooy Sa Thiès nee na Malick Sall moomu daq lañ ko war a def mook ministre Abdoulaye Félix Diome nee na ñaar ñi moom président Macky Sall daf leen a war a raje génne leen ci gouvernement parce que nag na ñuy doxaleeg na ñuy waxee baaxul tey suba waxi noppi loolu mu ko wax fa nga xam ne moo di ca micro Equivox moom Sa Thiès tuumaal gan ko doon tuumaal nag ci ay nerveux yooyu saa ne man day mbir mi daf maa jële kaw ndax man saa Thiès koo xam ne yow dangay ngay fayee ko ay million di dund beneen dund xanaa ay quinze mille francs bu la taxee wàcc ci mbedd mi naan dangay xeexal kii wala kële ne man bu keroogee lees ma war a wax wala mun ma jàppee man Sa Thiès rey rek lan ma war a def Gaston Mbengue ba tey wax na fa nga xam ne nii tamit moom moo di ca journal ba nga xam ne wala boog ca micro Equivox jàpp na daal maanaam fi mu nekk nii moom li am ba gas ne na ko daal li des ba des mooy nga jéem wax ak sa ministre ñu xool public bi nunu leen di lijjante ba nu ñëw ci làmb ji ndax nag jàpp na ne moom Gaston Mbengue li daje woon fan yii ci ay nit ci ay manifestation ci réew mi moo romb fuuf lay dugg ca làmb ja kon jàpp na ne kon fi mu nekk nii daal loo ci mën a dégg kon làmb ja moom war nañ koo commencé te buñ ko commencé war nañoo xool nu nuy def ba public ba dugg si ca biir waaye li neex nag wala tey moom jàppal li ma lay wax gomis yàq yàgg tey aminé wu fi xam nga ko fi ne ki nga xam ne mooy Olimata set dëkk fa nga xam ne moo di Medina nee na ma nag ab waalo waalo la waaye li ma neex ci mbir yi mooy danoo tolloo ma ñuul mu xees voilà mu nekkoon euh, suñu revue des titres Babacar ñu ñëw ñu ñëw ak yéen léegi ci suñu journal donc suñu làmb la ñuy dooree ak euh, accusation yi nga xamante ni moom la lutteur yi jot euh, pendant durant ces trois derniers jours wala quatre derniers jours yi nga xamante ni ministres yi ñu ngi leen di koy accuser di ko teg ci seeni der mm-hmm. donc dañ ci door ak ministre bi di Macky nga xamante ni Malick Sall autant pour moi mm-hmm. mu ne jeunes yi nga xamante ni dañoo génnoon doon manifester fii ci Sénégal bari wala bokk jeunes yëpp ay lutteur lañu maanaam ay ay ay ay mbër donc euh, kii ci mel ni euh, Gris Bordeaux daal di ci réagir moom tamit wax ci ñetti dëggam euh, Khadim Gadiaga itam ak Konaté donc Malick Sall moom dafa ne Malick Sall dafa war a démissionner ak ki nga xam ne tamit ñooy Ariel ah. Ariel so la de boobu waa waaw ne diffamation la à l'endroit des lutteurs maanaam dañoo teg seen der li nga xamante ni dafa ñaaw du te du dëgg Babacar. waa soxna euh, Oulimata euh, nan noonu la demee comme ni ñu ko waxee defe naa noonu ko journal bi dikk tey waxee ko. Mhm. defe naa ne coow loolu jóg na depuis démb wala sax coow coow li lu jiitu li jógoon na. Mhm. parce que bi émeutes yi commencé am wala bi coow li commencé la ñu commencé accuser waa làmb mhm. ki ñu njëkk a accuser mooy président bi di Gris Bordeaux mi jiite les lutteurs en activité. ne ñoom wala boog dañ koo gis ci ay nervi defe naa coow la lu jóg ba mu Gris Bordeaux man bokkoon naa ci ñi ko seeti mu ñëw wax ci Vikiro Equivox jamono yi bi ñu koy accusé lool mhm. moom mu nga tël bi naaru Pikine li lijjanti benn nit bu am problème mbëri ci ñoom mhm. yaa ngi dégg mhm. ñu foog ne fa la mbir yay yem wax ji di continuer ba tey lu toll ni un ministre de la justice dégg ko li nga xam ne mooy justice te justice xam nga la mooy justice defe naa da jàng ngay tubaab waaw mooy dëgg voilà kooku nag bu xëyaatee dem ba France 24 wax fa wax bu mel noonu defe naa loolu c'est grave yaa ngi dégg jëmale ko ci ñoo xam ne ay noobul lañ te dama koy wax di ko waxaat du question ni ma nekk ci làmba mais mbër ay noobul lañ parce que li may wax dama koo xam nit koo xam ne maanaam mhm. day bëre mhm. di entraîner di daan dooleem te la mu am bokk kook doomu aadama yi mhm. kon defe naa kooku wax ji mu wax moom daal li ko war mooy mu balu leen ak war na leen Malick Sall ministre de la justice maître Malick Sall balul waa làmb ak parce que nag wax ji moom dafa garaaw ba yegg fu garaaw passé nit ki nag euh, ñi wàccoon ci ci mbedd mi defe naa ne du ay mbër. te tax du ay mbër sénégalais yi ñoo wàccoon. yaa ngi dégg leer na ñëpp. sénégalais yi ñoo wàccoon am lu leen metti mhm. defe naa kon li war mooy ñi nga xam ne tey ñoom ñoo wër président Macky Sall bëggal ko jàmm. Mhm. parce que Macky Sall sénégalais yi bañuñu ko mais dafa am lu xew loo xam ne nii maanaam ay nit a ko wër yoo xam ne di ko digal wala boog di ko conseil ci loo xam ne nii mhm. bokkul ak liy réalité réew mi ngir lan seen bopp parce que yu mel nii moo koy waral kon defe naa wax jii moom Euh, ñaaw na lool daal ñaaw na trop trop. dëgg la ñaaw na lool euh, te ba tey dañ ciy delluwaat ci suñu làmb ba tey donc kii di Gaston Mbengue moom itam a joxe ci kàddoom wax ci xalaatam euh, moom tamit daal na jàpp ne Macky Sall dafa comprendre le message du monde de la lutte voilà Macky Sall a message du monde de la lutte ciy wax ci loolu. waaw loolu moom defe naa mooy li war a amaa ah, parce que li tax mooy monde de la lutte askan lañu maanaam aw ab pàcc la ci pàcc yi na ci réew mi. Mhm. yaa ngi dégg tey football bi am nañu seen kuréel. lamb am ko basket am na volley am na ku nekk ak sa kuréel mhm. agi de presse bi sax am nañu seen kuréel mhm. kon defe naa nag ñum ci mën a doon rek war nañ leen a bàyyi xel defe naa kon Gaston Mbengue bu waxee loolu xel mu dal lay indi ndax ku ne xam ne diggante ak président Macky Sall mhm. te itam président Macky Sall comme li may wax rek ba muy jël réew mi Sénégal yi dañ ko dugaloon ci seen xol yi bu ñu demee ba yegg si fii tey mu am na mu demee yaa sëpp la la ko bënn biir ngi dégg te ñi ñu bu ci amee part parce que moom moo jiite waaye ñi koy conseil tamit kenn demul mënul ñu des parce que bu fekkee dang dañ laa dénk Equivox su ma war la conseil te saa yu ma ñëw ne lépp baax na lépp baax na non am na lu baaxul jéem a la xam problème Gomis ak problème mu yàgg ak problème mu ami nit nit moo koy conseil ci yooyu nga koy conseil ngeen di waxante dëgg. dëgg la ci loolu lañuy ñuy jàll ak combat bi nga xamante ni moo war a boole Lac 2 ak euh, Eumeu donc euh, muy combat boo xamante ni mi ngi war a jàll le 4 avril te bu ñu xoolee président de la république dafa def un discours de la nation. donc mhm. ci biir discours boobu noonu mu wax ni que Babacar euh, couvre-feu bi dañ koy yokk maanaam dañ koy yóbbu ci zéro heure ba cinq heures du matin. Mhm. ñu yokk ko par rapport ak ni mu meloon avant. nga xam ne la daan commencé. Mhm. làmb ci làmb ji nii euh, ñu ñu ñu yaakaar ne bokk euh, ab ci couvre-feu bi autant pour moi Euh, lépp monde de la lutte dina changer lépp dina changer làmb ji mel ni mu meloon bu njëkk waaw loolu da lañuy ñaan mun na mel na mu meloon mhm. Mhm. parce que defe naa ne nag fi mu nekk nii moom li am fan yi passé ci Sénégal ci réew mi yëpp ci mhm. dajaloo ci doomu aadama moo pour fukki yoon ak juróom lay doogu ci arène nationale kon yaakaar naa nag lool war nañ ci tirer ay leçons waxuñu ne nag coronavirus bi jóge na fi wala amul loolu kenn mosu koo wax parce que jàpp wax ko boo ko waxee mooy yàpp nga médecine Sénégal te médecine Sénégal ku ne xam na ne ay boroomi xam-xam lañu kon corona mu ngi fi mais du tere kon ñu xool nu ñuy alléger mbir yi ba nga xam ne ni làmb buñ ko ñu ubbi ko te nit ñi xool nu ñu leen di ba ñu ñëw ci ay ay maanaam ñu respecter distance yi jéem a ay masque yor ay gel mais ñu ñëw seetaan si làmb ji quoi loolu lay am solo trop fa soxna Oulimata euh, Babacar Birasène di président bu CNG moom nee na fu mu ne nii officiellement âge retraite u lamb ji 45 ans la war a yem officiellement mooy lan officiellement maanaam ci yoon ci li nga xamante ni mooy yoon bu ñu seetee yoon li war a am li war am. mooy 45 ans 45 ans. te moom moo jiite war a yam kon kay loolu mooy wax ju jeex parce que moom moo jiite làmb ji kon kay kenn na na mbiree fa la war a yam parce que lañ waxoon. Mhm. mais ci biir loolu bi ñu ko waxee dafa am mbir yoo xam ne dañ leen doon gis ñu ne ah ci yoon. Mhm. fañ leen di arrêté loo seen carrière day fekk ñoom seen mhm. carrière jeexagul. mais lu mu ci mën a doon rek. nañ ko waxtaanee ba tënk ko parce que sport de combat moom maanaam dafa nekk mbir moo xam ne nii. c'est individuel bokkul ak football xam nga football da ngeen nekk onze di dimbalante mhm. mais lii nag yow maak yow dong lay doon ci géew bi mhm. kon defe naa ku ci dem ba ba mu leer na yow attanatoo ko est-ce que doo bàyyil sa bopp nga bàyyil sa bopp moo gën a oh. wóor waaw defe naa ko de bala ngaa gis loo xam ah boo ko defee xale dañoo am doole boo laax lakk la te du wóor <laughs> Babacar dañuy jeexalee <laughs> suñu lamb mooy euh, Mame As Meng mi nga xamante ni mooy président euh, waaw ak ah, kon de am na ah, waaw nit de boo nekkee ci mbir ba mu neex la nga ne maa bàyyi maa maa ma jàppoon maa bàyyi loolu moom mënee su ci lu bëri uh-huh. xëy na am na lu ko tax a bàyyi uh-huh. la ko tax a bàyyi nag xamuñu ko uh-huh. waaye comme bana daal ah yàlla na fa mu jëm dàqal ko fi mu jógee rek <laughs> Babacar jërëjëf bu ñu jógee ci sunu làmb dañuy jeexaleeg euh, dañuy euh, door fi nga xamante ni mooy euh, record mm-hmm. donc ci record moom euh, ba tey coowal ministre Malick Sall mooy continuer ba tey donc euh, kii di mooduloo Lo Gris Bordeaux ak Boy Niang ñoom tamit ñuy ñaxtu daal jëmale ci ministre bi nga xam ne mooy ministre de la justice Malick Sall donc Babacar nga wax ñu ci rek ci lu record wax waaw parce que ñoom ñoo ñu wax ñi muy Modou muy Boy Niang muy Malick Thiandoum mm-hmm. xam nga gis naa ñoom Sowru Fall ñépp wax nañu mm-hmm. li leen metti parce que lim leen waxal bokkul ak ñii ni ñuy doxee te ñii wax nii ñépp dama leen xam Modou Lo mii xam naa ko parce que li tax man xam naa ko mooy ci làmb laa ko xamee dem këram di seq moom liggéey ci wàllum interview couvrir kombaam ci ab liggéey Gris Bordeaux noonu Boy Niang noonu Malick Thiandoum noonu keneen noonu keneen noonu ñoom du jaajëk ko ñu nekk ay nit yoo xam ne ay personnalité lañu di dimbale ay nit kon defe naa dafay jombo dafa dafay ëpp nga leen di jiiñ lu mel nii te te yow leer na la leeral yàlla ne lii ñu lay wax bu ñu la tegaloon kaamil nga en tant que musulman ne la waatal ne lii lu am la mën nga am doo ko ñemee waat bu fekkee gëm nga alxuraan mm-hmm. kon defe naa daal la ma la ci début ba rek laa lay waxaat mm-hmm. damaa yaakaar ne moom dafa juum mm-hmm. comme joo daa juum nag na jéggulu ñi nga xam ne nii tooñ na leen ndax tooñ moom yàlla bëggu ko nit du tooñ waaye bokk na ci nit mbaaxaayu nit wala maqaamam doomu aadama Oulimata su ma la tooñee ma xam ne dama laa tooñ. ma assumé ko mais ma taxaw jéggulu devant tout le monde. dëgg waaw dëgg la ba tey ci suñu record ah bi nga waxee léegi léegi ne ah, tooñ la kii di Malick Thiandoum moom dafa ne c'est à la limite une insulte maanaam. saaga la ñu wax lañ leen teg. Mm-hmm. saaga la. <laughs> doy na waar moom kay waxuma la ra waaw parce que nag boo xoolee l'idée ci ay bakkan fii nga nga xëy tànn benn association wala benn kuréel ne ñoom la ñoo wàccoon ci mbedd mi. mais loolu kay waxuma la sa raw naw saaga sax parce que ñooñ kay ku def ku sañ a ñooñu kay yow buñ la jàppee assassin sax dëgg la kon li Malick Thiandoum wax day naqaree dindi ministre bi daal ay waxam moom fi mu nekk nii bu bëggee dégg dëgg moom mm. def na giraawaali rek ci ah, ah. diggum penc la ko defee nag na taxaw ci penc mi mu ko defee jéggulu waa penc mi en tout cas laal na ñoo xamante ni de moom daa mel ni neexuñoo laal waaw waa naqariwuñoo laal sax waaye boo leen di laal da koy teg ci yoon parce ñoom ay sénégalais la ñu di fay ay droit mm-hmm. yaa ngi dégg lu ma yor njaboot yore famille boo leen waxee lu ñu mën a dégg ak luy yoon dañ koy nangu waaye nag boo leen bëggee nag jàppe ay dof mhm. comme li may wax rek mbër yi ab dof fanaanu ci ña leen di topp dofuñu déedéet parce que ñu ngi sampi kër yor ay dépense di ko joxe yor soxna yu rafet nag am seen fulla de laay lay la laa dëkk ci kër yu kawe baaxkat bu mel ni donc euh, démb yow ak euh, équipe équipe Equivox TV yëpp euh, mhm. da ngeen seeti woon kii di Gaston Mbengue ak itam Sa Thiès mhm. lu ngeen fa jëlee Babacar wax liñ fa jëlee Sa comme dañ ko doon tudd moom ci mbiram ay affaire u nerveux yooyu te yaakaar naa ne Sa Thiès romb na foofu loolu la doon leeral moom ne xalaatut loolu ñemewu ko sax te itam moom yaram ak comportement am yaruñu ko ci loolu te itam wax dëgg yàlla li ma la wax rek Sa Thiès ñun xam nañ ko si làmb comme li ma la wax léegi ci Modou Lo xale bu yaru la boo ko gisee ci làmb nga ko gisee boo ko gisul ci làmb mën ngaa toog boo demul golf doo gis Sa loolu ñëpp ku ko seedeel boo demee nga xool vidéo bi xool commentaire yi nga xam ne la bukki waxoon li wax ñi li ñëpp wax mooy dëgg ku yaru la ku tegi mbiram ci yoon Gaston Mbengue itam bañ ko seetee dem xamal na président ko na xool nu muy def ba làmb ji ñu reprendre ko te bu ñu ko reprendre ñu xool ñuy def ba amateur yi ñëw seetaan si mm-hmm. ndax Gaston dafa jàpp ne li nga xam ne moom mooy loisir ci ab dëkk boo ko privé ay nit bu yàggee mën na indi leneen mm-hmm. tey émeute yi fi am bërki démb mm-hmm. mbirum Sonko mu ngi ci waaye méttit wu askan amoon ci seen xol mu ngi ci maanaam tëju wu ñu tëju mois de mars defe naa daaw tey la kaso rajo bu sëñ fàllu daaw ci heure bii ña demoon Touba kaso rajo bi bañ fa amee ñetti fan mu ñu ñibbi si ndax lan dañ leen woon diggante région ak kenn dootu fa dem mu mat un an kon defe naa mbir yi olof li ma la sànq li ñëpp wax ay dëgg soxna dëgg mu mel ni du loolu sax du du du mbirum Ousmane Sonko kese sax moo moo yëngal ah, euh, ndaw réew mi dañoo da daal loolu lépp a ngi ci biir yow mii xam naa ndax daan nga dem resto kan nga gëj a dem resto ami mais daan nga dem resto du ma dem fenn mais dinaa nga dëkk la ñuy dar keppee lépp ah. waaw fii lay yem donc ci suñu record moo nekkoon euh, euh, ci suñu suñu euh, suñu suñu journal de de l'arène <laughs> en tout cas <laughs> Babacar maa ngi xaar sama blouson non léegi léegi moom léegi a des mooy dama lay gërëm remercier la ñaanal la macha allah <laughs> mhm. souriante te niru nga ma ku neex deret te loolu dafa am solo di la nuyu di nuyu waa Medina yëpp di nuyu sa ay mbokk parce man li ma la wax léegi ñi sant Seck ñooy samay doomu baay muy mhm. nuyu ñi sant Seck ñëpp dëkk ak man ak yaay comme ci man doon maa ngi lay bégee di la ñaanal jàmm di la wax ne daal mhm. ah li liñ lay yaakaare ba nga ñëw fii ci biir équipe bi tamit mhm. yàlla na fi def lu kawe sa njort lenn nag moo koy maye liggéey waaw liggéey rek loolu la waaye wax ci yaa ngi mu mu mu ngi lay nax ay tegi semaak ay dilag yooyu. Mm-hmm. ci fa ngay mujjee du la neex. kon gën a la xar sa tànku tubéy liggéey di la ñaanal jàmm de wax ne blouson moom di nga ci jot ndax fàllu ñaa mu ngi may seetaan mu nga ba Maroc maa ngi koy bëgg dina la jox blouson ami itam dinaa ko jox kiyam bu nu mu tuddati loolu jigéen ñi def seen kanam yi palette bi <laughs> palette ba di nga jot palette bi di jot ñaaw bi waa a jërëjëf téléspectateur u Equivox TV ñu leen di jaajëfal ci seetaan bi ngeen ñu seetaan ah, di leen ah, dig daje euh, ëllëg incha allah